il dit il est mort politiquement fa faut nek président du Kourich. il a commis des erreurs politiques et en politique les erreurs se payent cash dama toog ci benn plateau ni leen Macky Sall loolu moo de réduire opposition bi ba mu à sa plus petite expression De voteur Idrissa ñàdd ko fi ko moo tax bu ma déggee ñu naan cadavre politique il est ma ne mort bi nag moo ñëw tey di wëliis pour ngeen xam ni mu ngi fi. lii ma lay wax dinaa la ko wax fii mais dinañ toogaat ma waxaat la ko Idi bu demee élection dañ koy laminer avec képp ku dem ak avec une victoire écrasante il est mort c'est un cadavre politique il est mort politiquement parce que dugg ak Yumidef yu def def na ci Ablaye Wade ci président Ablaye Wade suñu papa euh, jigu ko mu ñëwaat def ko ci mburoog soow du ko donc il faut faire très très très attention Il y yàlla dafa xareñ te yemul foofu ak man def cee dolli bi mu demee saraxu sëriñ wu Mbacké saraxu sëriñ Mansour Sy borom daara ji ñu boole ma ak junior ma dem wuy ji ko mu bari ay jam-jam lool comme ni ma ko sëñ Saliou waxe lii ma lay sant sëñ Moussa Mbacké naawel mën na ko témoin dana bari jam-jam lool wante boo ko nangoo yal na la yàlla defal li muy defal taalibe bu nangul sëriñam walla doom ju nangul waajuram bu ñu la tegee ca lingeer ca naaj wa di la sàmmloo ay ginaar toog fa fala la ker gi di fekk ndax ànd ak sa baay daanu Morgan and dans sa baay ma suis venu ñëw wuy ji Ablaye vous tous là vous me l'avez reproché hein. tous hein il était contre tout le monde était contre tout le monde tout le Sénégal et le monde entier était contre madame wuy Ablaïwa. mais man li ma fa wuti woon bi ñu waxtaanee quatre heures de temps dama ko ne yow nag na Wade yow yaay génn ci télévision bi nga toog nga wax ñetti yëf benn bi mooy nga wax ni li ngeen ma tuumaal lépp ay kàcc la dara amu ci wax na ko wala wax band yaa ngi fi musuma laa bàyyi musuma démissionné PDS pin si bii ma takk pin su PDS la ma ne ko yow yaa dajale bureau politique dàq ma demal nga waxaat ni yaa ma soxla yaa bëgg ma dellu ci sa boo ko waxee dafal ndànk boo ko waxee ba pare à 17 dinaa wax man li ma lay tontu mu wax ñetti yëf yëpp mais yokku ci dara et il est d'accord et ça je n'ose pas à son endroit utiliser le mot wante ma waxee ko na Serigne Cheikh jàngale mooy loola moom am lool bu ko mag yëngal aras puisque bi may dem di ko wuy dama Ousmane Tanordien et ak Abdoulaye Bachili, tàggu leen mais il fallait que me rendre compte mais bi may dem di ko wuy ji ci la Awa en ànd délégation dem conseil constitutionnel di déposer sa candidature le même jour donc je n'étais pas allé là-bas pour des histoires.